asalaamaaleykum euh, chers internautes de Kawtef euh, Sénégal ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen dalal ci seen émission Focus Star comme ni ma koy faral di defee saa su ne tey nag ma dalal fi naandaan sama mbokk Haalpulaar laa fi dalal Demba Guissé euh, Demba ñu ngi lay nuyu bu baax di la dalal fii ci groupe Sénégal. yee asalaamaaleykum maa ngi lay chara ma sœur na maa ngi leen nuyu di nuyu ñi seetaan ñëpp ah. di nuyu sama mbokk wolof yi mbokk également sama mbokk Haalpulaar yi kala bi wiimi e wimami mi eh, salminima donc di nuyu aussi vraiment euh, ñi si diaspora bi aussi hmm. euh, temps yi nag day dafa mel ni businessman nga <laughs> en de la musique ndax ndax demb rek te na téléphone bi maa ngi dégg lii ay conteneur bato bi kañ lay yegg si <laughs> oto bi nu mu demee noonu dangay waaja danga maa yéene ay conteneur mais <laughs> amin mais temps yaa ngi si dara de wax ñu ci business bi en de la musique quest en dehors de la musique maa ngi ak famille bi. Mhm. waaw nekk nekk samay bagages yi bopp. Mhm. waaw des fois ma seet léegi seetkat laa. ah ok waaw damay seet damay ah. petaaw. d'accord donc balaa émission bi di di jàll <laughs> incha allah balaa balaa ñuy tëj fin bi nga seetal ma wax ma loo ma gisal rek ngi nii du <laughs> la wax léegi li ma gis. voilà amul benn problème. <laughs> Euh, ñu ñëw ba tey nag ci li nga xam ne ne moom mooy actualité bëggoon naa njëkke xi yow ci feneen mais dafa am loo xam ne ne dafa dal ci ki nga xam ne moom mooy suñu mag Pendo donc mu defoon woy ak Chérifou donc woy bi dem ba egg million millions 700 ñu xëy rek woy bi ñu supprimer ko sur YouTube est-ce que mën nga ñu gën a expliquer réellement. bon euh, loolu moo jaaxal ñëpp. Mm. parce que takk bi mu amee bi ma déggante ak euh, Prince Abdallah donc même chose la ma wax par exemple là moo moo géraloon euh, euh, Pendo compte bi te presque baax la ku am yéene aussi ci Demba Guissé ak Pendo aussi ndax maa ko présenté Pendo nit ku baax la mais xam nga liggéey boo gis rek dina am jour boo xamante ni fu fu ñu lay jaaree doo ko tey doo ko xam liñ naan jour ba ngay daanu cuuna ngay nekk donc euh, yàlla dogal nag ñuy jaaree ko ci compte am xam naa ni rek effacé vidéo Pendo bi te effacé nañu vidéo bi nga xam dafa bari trop ay vues nit ñi bëgg ko ay weer ah, mm-hmm. nit ñi bëgg ko trop vraiment xam nga ndax way bi dafa neex mm-hmm. léegi bi mu loolu amee Pendo si mu affaire bi euh, mu woo ma ñu waxtaan si bi ñu jëlee ma ne man sax après ma ma téewoon a mais affaire bi ne dama koy lijjanti ndax bi ñu bi ñu piraté sama compte mm-hmm. xaaral ma dem ma lijjanti loolu quoi mais jaar nañu fépp fépp fépp mais xam nga YouTube aussi dafa am ay réalité moom maanaam bu nee ni yaa kont euh, bi dafa supprimer wu ki ki kii ko supprimer ci yow la jaare kon day mel ni yaa ko supprimer donc après duñ la mën a joxaat vidéo bi def nañu on a tout fait balaa ñoo dugal vidéo bu bees bi affaire bi dem ba mënul euh, mënuñu ko jot après ñu ne Pendo boo finalement na dugalaat beneen quoi. waaye xam nga xam nga Sénégal doo xam Sénégal doo xam fan la ci àddina waaye soxor dafa xew léegi. Mm-hmm. et je pense que àddina mu solo yooyu jaru quoi Eh, nit liggéey nit liggéey affaire am ba mu toll fenn fi nga ñëw effacé loolu ki effacé ki la effacé nag foofu bu ki effacé sa clip moom. ba bu la yow boo ko jege woon yow lay effacé. no nga non no c'est vrai non mhm. waaye comme nag yàlla mooy rëddal nit ki. donc euh, effacé ko du mën a yomb quoi. Mhm. mais quand même di wax gars yi rek nit ñu profité demaat encore ci compte Pendo Guissé. Mhm. Euh, Pendo Guissé mu abonné en même temps mu partage vidéo bi ndax nag euh, vidéo bi. Pendo moo ëpp loolu quoi et je pense que bon euh, jàll na quoi. waaw waaw mhm. mais d'après ci lu ñu dégg dañ dégg ni nit ki après da ko yónnee SMS xaw ma message. est-ce que non non pas SMS juste Pendo dafa bëgg expliquer ni. Mhm. Euh, euh, ki ki ki effacé vidéo bi. waaw bi mu effacé ba dafa la dafa envoyé ci melu Pendo. Ah. Oh, ok dafa envoyé par mail xamal ko ne waa ñoo effacé sa vidéo bi waaye désolé ou bien kii excuse nangam nangam nangam mm-hmm. parce dañu amoon problème réglage et tout ça mais mais pirate la rek. pirate la quoi donc mais mm-hmm. xam nga tey ndax sa compte je pense que yow it mësoon nañ ko piraté. nañ ko. Mm-hmm. ma lijjanti nag ba ñuy indi ko. compte Kumba euh, Gawlo Seck mës na ko piraté. compte Papa Ngagne Ndiaye mës nañ ko mën euh, compte. Euh, père Bécaye Mbaye piraté nañ ko temps yi passé muy Bantamba bi donc kuy mm-hmm. kuy piraté compte yu mag yooyu doo fi bàyyi tey mm-hmm. euh, benn kilip bu nekk ci biir compte donc sant yàlla rek gannaaw nit ñi ñoo gën a fort compte yi ñoo gën a foor vidéo yi donc loolu mooy importance bi mm-hmm. ko euh, démb bëggoon naa xam est-ce que mës nga dem ambassade France wala ambassade États-Unis ñu refuser le visa parce que temps yi ñu ngi gis dëgg la chanteur yi comme ni ko wax. ni tey dem naa ñu réfusion mais gis nañ ni instant bi yéen ñi nga xam ne dangeen war a def ay tournée da ngeen war a dem pour liggéey daan seen doole comme élèves yi nga xam ne aussi dañu war a jóg dem jàngi ji bitim réew instant bi métti na ci biir ambassade yi da ngay dem ñu jox la rendez-vous 2023 wala nga dem xam nga rek ni muy demee. c'est vrai mhm. c'est vrai man <laughs> mais nag du année yi quoi année yu njëkk yi année yële. Mhm. parce que man 2012 laa commencé dugg Europe ki ma yóbboon Europe mu ngi tudd Lamine Dabo. nekkoon benn euh, festival euh, bu ñu doon def chaque année. Mm-hmm. man la woon ak waa Daara ji famille et tout ça ak di xaa mm-hmm. genre. Mm-hmm. ba fa jógee. Mm. rejeté nañ ma visa plus de quatre fois. yu tegloo. Mm. mais comprendre moo nan la. 2012 13 14 quinze 16 ba 2017 laa duggaat Europe. Mm. ndeke amoon na complication. côté mm-hmm. ambassade bi. ak man mm-hmm. je j'avais rien xaw ma woon la. Mm-hmm. mais Baaba Maal moo moom mu yóbbuwaat Europe en 2017. Mm. laa commencé nag saa su ma ñaanee ñu may ma vite fait mais c'était compliqué. ay affaires yoo xam ne doo comprendre. ok mais yàlla mi dara tëwul. 2017 mm. boobu ma commencé waat dugaat Europe non. dama ko tegle festival yi ñëw programme yi ñëw ba ba ba ba ba ba kañ laa gëj Europe je pense que matul la bu matee deux mois ci la yem wala un mois mm-hmm. ok léegi su ma neexee may dugg di génn Europe waaw que waaw. Euh, euh, euh, kon Baaba Maal au papa bi à part côté bi dafa nekk ku la jig. Baaba Maal dama lay wax ñaari baat. Mm-hmm. Baaba Maal kenn la. ku ñu am ci leñol bi mm-hmm. Baaba Maal mënul nekk ñaar xam ñu koy ñaanal oh. mu yàgg fi rek mm-hmm. ndax nag taxaw nañu partout ah. Baaba Maal dañu jéem a nuróo nuróolu ak moom mais c'est impossible am na yoo xamante ni kenn la koy eh, kenn la ko yàlla di may ci benn xeet ñu mu koy mayee feneen ak feneen ak feneen yaa ngi dégg mm-hmm. Baaba Maal a représenté l'Afrique Baaba Maal représenté na Sénégal euh, représenté na partout der bu ñuul ci comprends donc Baaba mal beneen niveau la quoi yaa may dégg. et fois nag euh, euh, du comprendre ni Baaba mal amatul dara lu mu prouvé ci ci amul dara lu muy wane quoi. Mhm. dégg parce que vraiment te ba tey nag. fi mu nekkoon ci voix mu nga fa ba tey Baaba mhm. Maal tey la ëpp technique Baaba Maal tey la gën a am inspiration waaye Baaba Maal tey la gën a Euh, euh, euh, posé wu buy way nga xam ni kii li muy def maîtriser na ko quoi dégg ñun ñii nag ñu ngi way ah, ñu ngi way ñu ngi woy muy neex alpulaar yi di neex olof et tout ça yaa ngi dégg mm. mais wax dëgg yàlla nag defaguñu nag vraiment lu ci xaw a jege Baaba Maal quoi parce que nag foofu mm. foofu beneen affaire la quoi ba waaw Baaba Maal beneen. <laughs> <laughs> mais ban ban relation nga ñaar xam nga. loo xewle Baaba Maal xam nga ni déplacement am yombul. waa xam nga Baaba. day ñëw nga gis waa xam nga déjà relation xam nga wax naa ko keroog nee na la Baaba Maal sama xarit papa la woon sama papa dafa doon liggéey aéroport. Mm-hmm. Mamadou Yero Gise. sama mm-hmm. papa. Mm-hmm. ñu koy ma Mamadou Gise dafa doon liggéey aéroport. ñëpp bu ñuy bu ñuy juddoo suñu papa ci loolu lañu gis muy liggéey aéroport eh, ku xam Baaba Maal nag xam ko ci tournée internationale te ku dem tournée foog nga jaar aéroport mm-hmm. sam papa relation mu amoon ko ak Baaba Maal ak ñoom Mbassou Niang yàlla ko yàlla ak ñoom bare bare bare ci daane la ñuul ok ok léegi Baaba mu nekk nit boo xamante ni eh, kóllëre googu mu amoon ak sam ba sam tey jël na retraite nekk na mag et tout ça Baaba Maal këlëb mu ak ak sam papa man ma judd nekk waykat di imiter Baaba Maal sama trophée yi may gagné yëpp le majeure partie yi si ëpp sax laay wax booy Baaba Maal laa doon woy waaw Baaba kay su ma jëlee def ma comme doom wax dëgg yàlla ah, mais mais def na lu gën a rafet euh, continuer na kóllëre googu yaa ngi dégg eh dama koy wax haut et fort tey ba dañ may wax ne des fois da ngay woy comme Baaba Maal mais damay fier mm-hmm. sama papa dégg euh, forcé wu ma ko ah xëccu ko dégg dafa ma def doom ma def ko papa et je pense que doomam te doo am complicité non non bari na fi sax waaye dafa fekk ne man dama dama dama nekk nit bu nit bu nit bu nit bu nit bu nit bu dëggu ci li may wax ku ne xam ne ma loolu man boo ma nee sax boo ma tëqalee ak Baaba Maal sax ci ay photo xaw ngeen am nii xaw ngeen damay kontaan parce que suma papa et je pense que nit nag day am idole day am référence ci loolu dégg te lii de Baaba def ci musique alpulaar laa la wax alpulaar defagul loolu te gëwuma ne alpulaar dina alpulaar dina ko def ndax xam nga tax mm. euh, yoon bi dafa metti ci ñoom musique am fu mu tolloon ñoom ñu ñëw yóbbu ko beneen niveau tey respect bu ñu ko amee tey ci extérieur bi partout tey grace à Baaba Maal musique pulaar mm-hmm. parce que nag euh, ku ne foo dem xeet boo dem am na foo koo xam ne wax dëgg yàlla nag taxawal na leen nag wax dëgg yàlla nag kooku mooy kooku mooy biddéew bi ah te Baaba Maal vraiment nag mooy mooy lumière u alpulaar def musique bépp alpulaar laa wax sama ka wax nag xam naa ni peut na am xëy na ñu mu xaw a dérangé waaye nag <laughs> ni mu amee <laughs> noonu laa ko waxee noonu la ko àddina gisee ñu waxante dëgg